bojo bojo yi ñoo ko déposé motion de censure boo xam ne ne bi nga déggee seen président de groupe xam nga politique def ci baax nit ki buy wax mu am feeling loolu def ci baax ki doon jël kàddu di défendre sax seen motion de censure dafa waroon daf ñu waroon abba suñu président de groupe ñu jox ko mu waxal ko sax li mu bëggoon wax ndax amul feeling buy wax rek te te te te te te te doo xam sax lan lay wax. donc amul feeling contenu bi zéro leneen aussi li ma lay wax il y a des gens monsieur le maire de Yeumbeul déglu naa ce discours vous avez un niveau quelque que ça quelle que soit sa position d'opposant mais ñii duñ say àndandoo parce que amuñu niveau niveau bi moo baaxul il faut réfléchir et eh, mais malgré on comprend que vous êtes candidat ça aussi vous le connaissez Nous savons que vous saa candidat. Ça, nous savons que vous êtes candidat. Ça, il faut le comprendre. yéen a ngi ànd mais cokkaas yaa ngi ci biir mais l'histoire nous dira te fii laa ko waxee ci assemblée nationale. ma ne mbooloo mi déglu ngeen sénégalais ñi nga xam ne ne ñoom ñoo déposé motion de censure ba nga xam ne ne gouvernement bii na démissionné malgré voté nañ fi six mille quatre cent et quelques milliards nanguwuñu voté ci benn budget. jël nañu ay kaddu ay yoon même bourse de familiale bi ñuy koy génnee di ko jox ñi nga xam ne dañoo néew doole yéen wuñ leen ko ñu ne loolu lépp na ñu ñëw gouvernement bi day na ñëw tey fii ci assemblée nationale ñu koy daaneel tuuti ngeen ci loolu loolu ñëw ñu wax leen ko beneen bi encore ma dégg fi benn jigéen jël kaddu jigéen dirigé woon suñu liste fii benn Bokk Yaakaar maay wax ak moom de Farba Ngom xam lépp nag maay wax moom xam lépp de moom laay interpellé bi mu nekkee premier ministre fii ñëw fii def déclaration politique général un jeudi soir après le conseil des ministres bi ma ko seetsee nan laa ko seetsee ak nan laa ko seetsee woon ak li ma ko seetsee woon doo ñëw ba ci fii tey taxaw di ne sa njub ne yaa gën a jub Sénégal li doon jaar sama loxo mooy ñëw di la ko indi loolu njub la man mii sama loxo la jaar de man mii tey li taxoon mu jaar sama loxo xam nga xam naa man duma daw res je prends responsabilité responsabilités nañ ma ci woow fu ma woo ma wuyu ko pour wax ne ne da jub di woone sa njub c'est trop tard loolu dafa baax nit ñi xam ko c'est-à-dire que taxaw tu n'es plus dans une position d'être avec Macky Sall di woone ne man jub naa nii naa du dëgg waay il faut être honnête il faut être honnête mane dama leen di wax lenn dama leen di wax leen rek li taxoon ma dem ci moom man xam naa moom xam na moom laa doon bëgg a cuisiner rek man borom pexe laa pexe yi ma defoon ba cuisiner ko moom xam na man xam naa na ma interpellé na ma interpellé subo u ginnaaw suba c'était pas d'autre xam nga waxoon naa ko fii ci benn ministre déggatoo keneen teg ci kàddu lii aussi moom laa ko wax na ma woo suba na ma woo ginnaaw suba et je suis prêt à répondre cette convocation maa la wax loolu ma ne Amadou Ba monsieur premier ministre fii incha allah ci assemblée nationale cette motion la dinañ ko lem taxañ ko teg ko ci enveloppe dem ful ko ci géej woon le ni leen ñëw leen nii ngeen.